liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñu yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al-ulya Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké nous vous devons un grand hommage au nom de l'islam nam sant rekk te soññ bu nu geesu bu taxaw Cheikh Mouhamadou Mountakha Al Mbacké vous témoignez gratitude par la ziar nous est redevable jërëjëfe Mbacké Hizbut Tarqiyyah ay géej ay tund ay montagne bu doxoon sa diggante ak sa sëriñ da nga ko war a jéggi. 22 mai Touba un appel général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké c'est la grande ziar de Hizbut Tarqiyyah Hizbut Tarqiyyah